noo ngi dalal gan ñëpp di am mbégte ci turu Serigne Bassirou mi imam ratib bi ak ñi mu ko àndal ñëpp waaye itam ci turu alxaaji Mbàkke yi fay mi nga xam ne moom la denc dénk saytu barab mu doon itam jëwriñ Serigne bi fii ci Ndakaaru kon day mel ni ci ñaari kàddu yooyu lañuy ñuy waxe ñu ngi dalal bokk yi yépp di am mbégte ci jotaay bii nga xam ne yàlla def na ñu di ko defee ci barab bu sell bi waaye di ko defee itam ci weeru tedd wi di weeru safar di weeru xaadimu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yi Masaalikul Jinaan amati na mbégte ci dalal jotaay bu mel nii ndax lii dafay wane rek ne muy wax lii dafay wane rek ne barab bi nekk na symbole léegi mel na ni barab bi nekk na symbole léegi ñu bare baree bari ñu amee œuvre scientifique ñuy taamu barab bi di ko fi defee loolu nag am na lu muy wane am na lu muy wane te li tax ma di ko wax mooy diggante bi ñu ko ubbeeg léegi ay livres yu baree bari présenté nañ ko fi dédicacé nañ ko fi ñu bari itam taamu loolu di am solo ndax day wane ne barab bi du barabu jaamu yàlla rek ci niñ ko xamee ci aada jàpp ne julli la daal di sëlmal dem waaye mel na ni léegi ñëpp xam nañ ne barabu xam-xam la te xam nañ ne itam am na institut boo xam ne naaw nañ ko fi te bu sottee loola sax dana gën a jëm kon euh, bokk yi tey nag dañuy daje ngir présenter livre bu am solo livre boo xam ne bu am valeur scientifique la ndax ki nga xam ne moo ko bind ñi nga xam ne ñoo jamonante moom ñëpp xam nañ ko muy ku bëgg xam-xam dafa jóg rek wuti xam-xam ak di ko xam xamle am xam-xam ba pare taxawal boppam ngir di jàngale ak a jàngale ak a taxawal ay daara kon ku liggéeyal xam-xam la téere bi lenn rek la ci ay liggéeyam yi nga xam ne mu koy def kon loolu itam nag du du yéeme lool suñu xamee fi mu jógee muy Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a dëgëral yàggal ko fi mën naa lam yépp àddu te yaakaar nañ ne naal bi ñu ci gën a amal solo ñun mooy université bi yàlla na àgg ci loxoom. amiin amiin amiin di du nu guddal nag ndax téere bi moom xëy na ñi koy présenté danañ ci ñëw waaye dama wax ne téere bi am na valeur scientifique bu am solo bi ma koy feuilleté di ko xool di ko te tasafa dafa am ay tomb yoo xam ne. bi ma ci accès dama taxawaat tomb yooyu bariwul waaye yooyu rek laay jukki man wax ko bi ci jëkk mooy lan mooy ne sunu bindkat bi di gëstukat bi di cheikhul xadim cheikh xadim Mbàkke Muntaxa dafa am lu mu teel a leeral ci histoire ne histoire kat buñ koy joxe joxewuñ ko rek ngir nit ñi bëkki daal di fette su seen xol sedd ñu ne ak rëy jëf ju rëy ngoog nee na loolu taxul histoire a jóg histoire bu ñu koy jàngat ak a joxe mooy dañoo bëgg mu doon jumtukaay boo xam ne buñ ca jógee danañu xam ne may ñu xam fu ñuy teg suñu tànk waaye danañu dolli suñu yitte itam ba ñu mën fee def loo xam ne bu ëllëgee itam bu ñuy bind histoire boole na loolu gis-gis bu am am solo la ndax bari na ñoo xam ne euh, da ngay dégg ñu nekk li histoire yonent bi wala ñu baax ñu ba ci histoire Cheikhul Khadim ci tànt yi ñëpp bëgg jóg rek dégg ñiy joxe seen li am waaye day mel ni foofu la yem sëñ sëriñ Cheikh nag nee na histoire wërta yem foofu loolu taxul ñu di ko joxe loolu taxul ñu di ko bind loolu gis-gis bu am solo la boo xam ne nun gëstukat yépp war nañ cee bàyyi xel loolu benn tomb la tomb ñaareel bi mooy boo xam ne nag daf ma yitteel loolu man ndax xëy na koo xam ne am na ci genn fànn goo xam ne sama xam-xam dafa màcc ci wàllu li ñuy tuddee gestion li ñuy tuddee leadership daf lay yitteel man nag maa ngi door a gis téere boo xam ne ñu ngi koy bind ci Serigne Touba muy waxtaane tomb bu mel te loolu lu mënta ñàkk la mooy xiyaada ku wax ay mbooloo wax njiit wax njiit itam wax ay melokaanam loolu na da cee dikk dikkin wu am am solo woo xam ne war naa tax kenn ku nekk ku ñuy tuddati ku ñuy tuddati njiit nga bàyyi ko xel xool sa bopp xool jikko yooyu ba xam loo ca am loo ca am nga dëgëral ko loo amul nga wuti ko loolu sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh tomb bu am solo la ndax ñi fi ay kilifa bari nañ kenn ku nekk war koo jàng xool loo ca amul nga wuti ko loo ca am nga dëgëral ko loolu itam tomb bu ama am solo la boo xam ne euh, bëriwut li ma koy gis ci mbind yi nga xam ne mu ngi koy bind ci Serigne Touba beneen bi ko ñetteel nag ci li li nga xam ne bi ma ci accès taxaw naa ci mooy rigueur scientifique bi mu am xam ngeen ne ñu bare bari ci ñun dañuy bind rek te duñu tënku ci norme yi nga xam ne àdduna def koo laaj ci kuy gës léegi ci wàllu xam-xam du caage ne rek loo for def ci la du caagee ne da ngay taxan rek matt goo for def ci déedéet loolu su boobaa téere bi mën naa rëy waaye du tudd xam-xam xam-xam dafa am ay condi ay ay norme ak i yoon yoo xam dañ naan ku ci bëgg def lu am njariñ fii ngay jaar loolu nag seetlu naa ne moom sàmmonte naa moom lool gis naa ne dëgg la sëriñ Basiru maamama waaye am na ci foo xam ne ba mu fa agsee te sëñ Mouhamadul Amin Diop ak sëriñ Bassirou bokkuñ niñ ko waxee gis naa ne def caa dugg rek dugub dugub gëst kët dugub euh, koo xam ne xam-xam rek lay doxe ba tax su laajee mu dëppale seeni wax dox ba dëppale bu laajee itam mu ne ah daa mel ni kii waxam moo gën a wóor ndax nangam ak nangam léegi nag dafa mel ni ñu baree bari ci danañ koy faral di dégg nañu nañu déglu rajo yeeg ñu bindkat yu bari da ngay dégg koo xam ne ci histoire lay wax dangay dégg koo xam ne ci histoire lay wax ñu laaj ko ne daa am koo xam ne nee na lii ak laa te sàlla te saasa rek la mu ciy teg mooy loolu wérul loolu kenn du ko wax ku koy wax rek sa xam-xam des na ndax histoire kenn du ci waxe noonu da naan am na ku waxee nii am na ku waxe ne man nag gis naa ne wax bii moo gën a dëgër ngir la nangam ak nangam su ko defee bu ëllëgee keneen kuy gëstu bu ñëwee moom it sukkandiku ci li ngeen wax dolli ca leneen waaye kenn mënta nekk koo xam ne da ngay catégorique nangam wérut te dégg naa fi ñu bari ñoo xam ne ah saa suñ leen laajee ci histoire dañ naan nangam wérut nangam wérut kenn du ko wax ci histoire loolu nag gis naa ne Serigne Cheikh euh, sàmmonte naa moom loolu jàngal na ko itam. ba ñun ñëpp ñu war bàyyi xel bu ëllëgee lu mu doon doon sa maam loolu itam lu ci am solo la ndax léeg-léeg kenn ku ne day bëgg maamam ba tax mën naa am su cay wax bu ca waxee ci xam-xam waaye moom nag li muy doon doon maamam ndax li xam na ne sëñ Touba mooy maamam mooy sëriñam te sëñ Touba mii sëriñam moo ko yitteel ci gën a yitteel ci doon bi mu doon maamam te loolu am na solo la sëñ Touba mën naa doon sa maam te du doon sa sëriñ ni ko am kenn daan xam-xam borom xam waaye ku sëñ Touba di sa maam di sa sëriñ li ngay jiital mooy mooy sëriñ bi ci ci maam bi kon nag loolu moom ay jikko la yoo xam ne seetlu naa ne gis naa ko ci sëriñ Cheikh ci gëstu bi muy ay bind yoo xam ne bëggoon naa wax ko ci kanam mbooloo mi ngir ñu xam ne téere bi téere bu am am solo la bu jara am la mu jara jàng la téere bi daal mën nañoo wax ne incha allah dana dolliku ci euh, bibliothèque charia bibliothèque islamique bi ci nekk dana ci dolliku te day dolliku boo xam ne bu am am solo la du doon dolliku boo xam ne symbolique la waaye dolliku noo ngi dalal gan ñëpp di am mbégte ci turu Serigne Bassirou mi imam ratib bi ak ñu ko àndal ñëpp waaye itam ci turu alxaaji Mbacke yu fay mi nga xam ne moom lañu dénk saytu barab mu doon itam jëwriñ sëriñ bi fii ci Ndakaaru kon day mel ni ci ñaari kàddu yooyu dañuy waxe ñi ngi dalal bokk yi yépp yi am mbégte ci jotaay bii nga xam ne yàlla def na ñu di ko defee ci barab bu sell bi waaye di ko defee itam ci weeru tedd wi di weeru safa di weeru xaadimu Mustafa sallallahu alayhi wa mbokk yi Masaalikul naan amati na mbégte ci dalal jataay bu mel nii ndax lii dafay wane rek ne lii wax lii rek ne barab bi nekk na symbole léegi mel na ni barab bi nekk na symbole léegi ñu baree baree bari su ñu amee œuvre scientifique danañu taamu barab bi di ko fi defee loolu nag am na lu muy am na luy muy wane te li tax ma di ko wax mooy diggante bi ñu ko ubbee léegi ay livres yu bëree bëri présenté nañ ko fi dédicacé nañ ko fi ñu bëri itam taamu ko loolu di am solo ndax day wane ne barab bi du barabu jaamu yàlla rek te ñu xamee ci aada jàpp ne julli la daal di sëlmal dem waaye mel na ni léegi ñëpp xam nañ ne barabu xam-xam la te xam nañ ne itam am na institut boo xam ne naam nañ ko fi te bu sottee loola sax dana gën a jëm kon euh, bokk yi tey nag dañuy daje ngir présenter livre bu am solo livre boo xam ne bu am valeur scientifique la ndax ki nga xam ne moo ko bind ñi nga xam ne ñoo jamononteen moom ñëpp xam nañ ko muy ku bëgg xam-xam dafa jóg rek wuti xam-xam ak di ko xamle am xam-xam ba pare taxawal boppam ngir di jàngale ak a jàngale ak a taxawal ay daara kon ku liggéeyal xam-xam la téere bi lenn rek la ci ay liggéeyam yi nga xam ne mi ngi koy def kon loolu itam nag du yéene lool ñu xamee fi mu jógee muy Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla gën a dëgëral yàggal ko fi man naalam yépp àgg te yaakaar ne naal bi nu ci gën a am na solo ñun mooy université bi yàlla na àgg ci loxoom. amiin amiin amiin di duñu guddal nag ndax téere bi moom xëy na ñi koy présenté danañ ci ñëw waaye damaa wax ne téere bi am na valeur scientifique bu am solo. bi ma koy fëyite di ko xool di ko tasappax dafa am ay tomb yoo xam ne bi ma ci accès dama taxawaat tomb yooyu bëriwul waaye yooyu rek laay jukki man wax ko bi ci jëkk mooy lan mooy ne sunu bindkat bi di gëstukat bi di Cheikhul Khadim Cheikh Khadim Mbacké Mountakha dafa am lu mu teel a leeral ci histoire ne histoire kat buñ koy joxe joxewuñ ko rek ngir nit ñi bétti daal di fett su seen xol sedd ñu ne ak rëy jëf ju rëy ngoo nee na loolu taxul histoire a jóg histoire buñ koy jàngat ak a joxe mooy dañoo bëgg mu doon jumtukaay boo xam ne bu buñ ca jógee danañu xam ne may ñu xam fu ñuy teg suñu tànk waaye dana dolli suñu yitte itam ba ñu mën fee def loo xam ne bu ëllëgee itam bu ñuy bind histoire boole bi loolu gis-gis bu am am solo la ndax bari na ñoo xam ne euh, da ngay dégg ñu nekk histoire yonent bi wala ñu baax ñi ba ci histoire Cheikh Khadim ci tànt yi ñëpp bëgg jóg rek dégg ñi joxe seen li ñu am waaye day mel ni foofa la yem sëñ sëriñ Cheikh nag nee na histoire wërta yem foofu loolu taxul ñu di ko joxe loolu taxul ñu di ko bind loolu gis-gis bu am solo la boo xam ne nun gëstukat yépp war nañ cee bàyyi xel loolu benn tomb la tomb ñaareel bi mooy boo xam ne nag daf ma yitteel loolu man ndax xëy na koo xam ne am na ci genn fànn goo xam ne sama xam-xam dafa màcc màcc ci wàllu li ñuy tuddee gestion li ñuy tuddee leadership daf lay yitteel man nag maa ngi door a gis téere boo xam ne ñu ngi koy bind ci Serigne Touba muy waxtaane tomb bu mel noonu te loolu lu mënta ñàkk la mooy xiyaara ku wax ay mbooloo wax njiit wax njiit itam wax ay melokaanam loolu la da cay dikk dikkin wu am am solo woo xam ne war naa tax kenn ku nekk ku ñuy tuddee ku ñuy tuddee ci njiit nga bàyyi ko xel xool sa bopp xool jikko yooyu ba loo ca am loo ca am nga dëgëral ko loo ci amul nga wuti ko loolu sëriñ Cheikh sëriñ tomb bu ama am solo la ndax ñi fi ay kilifa bari nañ kenn ku nekk war nga koo jàng xool loo ci amul nga wuti ko loo ci am nga dëgëral ko loolu itam tomb bu ama am solo la boo xam ne e, bëriwut li ma koy gis mbind yi nga xam ne mu ngi koy bind ci sëriñ Touba beneen bi ko ñetteel nag ci li li nga xam ne bi ma ci accès taxaw naa ci mooy rigueur scientifique bi mu am xam ngeen ne ñu bëree bëri ci ñun dañuy bind rek te duñu tënku ci norme yi nga xam ne adduna def koo laaj ci kuy gëstu léegi ci wàllu xam-xam du caagee ne rek loo for def ci la du caagee ne da ngay taxam rek matt boo for def ci déedéet loolu soo boobaa téere mën naa rëy waaye du tudd xam-xam xam-xam dafa am ay condi ay ay norme ak i yoor yoo xam ne dañ naan ku ci bëgg a def lu am njariñ fii ngay jaar loolu nag seetlu naa ne moom sàmmante naa ak moom lool gis naa ne dëgg la sëriñ Basiru maama waaye am na ci foo xam ne ba mu fa agsee te sëñ Mouhamadul Amin Diop ak sëriñ Basiru bokkuñ ni ko waxe gis naa ne daf caa dugg rek dugg dugub gëstu kët euh, koo xam ne xam-xam rek lay doxee ba tax su laajee mu dëppalee seen wax. dox ba dëppale bu laajee itam mu ne ah daa mel kii waxam moo gën a wóor ndax nangam ak nangam léegi nag dafa mel ni ñu bëree bëri ci ñun danañ koy faral di dégg nañu nañ déglu rajo ñu bindikat yi bëri dangay ngay dégg koo xam ne ci histoire da ngay dégg koo xam ne ci histoire lay wax ñu laaj ko ne ko daa am koo xam ne nee na lii ak laa. teg sàlla te saasa rek lam ciy teg mooy loolu wérul loolu kenn du ko wax ku koy wax rek sa xam-xam des na ndax histoire kenn du ci waxee noonu da nga naan am na ku waxe nii am na ku waxee ne mën na gis naa ne wax bii moo gën a dëgër ngir laa nagam ak nagam su ko defee bu ëllëgee keneen kuy gëstu bu ñëwee moom it sukkandiku ci li ngeen wax dolli ca leneen waaye kenn mënut a nekk koo xam ne da ngay catégorique nangam wérut te dégg naa fi ñu bari ñoo xam ne ah saa suñ leen laajee ci histoire dañ naan nangam wér nangam wér kenn du ko wax ci histoire loolu nag gis naa ne Serigne Cheikh euh, sàmmante naan moom loolu jàngal na ko itam ba ñun ñëpp ñoo tee bàyyi xel bu ëllëgee lu mu doon doon sa maam loolu itam lu ci am solo la ndax léeg-léeg kenn ku ne day bëgg maamam ba tax mën naa am su cay wax du ca waxee ci xam-xam waaye moom nag li muy doon doon maamam ndax li xam na ne Serigne Touba mooy maam mooy te sëñ Tuubaa ñi sëriñam moo ko yitteel ci gën a yitteel ci doon gi mu doon maam te loolu am na solo lool sëñ Tuubaa mën naa doon sa maam te du doon sa sëriñ ni ko am kenn benn xam-xam borom xam-xam di waxee waaye ku sëñ Tuubaa di sa maam di sa sëriñ li ngay jiital mooy mooy sëriñ bi ci ci maam bi kon nag loolu moom ay jikko la yoo xam ne seetlu naa ne gis naa ko ci sëriñ Cheikh ci gëstu bii muy ay bind yoo xam ne bëggoon naa wax ko ci kanam mbooloo bi téere am am solo la bu jar am la bu jar a jàng la téere bi daal mën nañoo wax ne incha allah dana dolliku ci euh, bibliothèque sharia bu sa bibliothèque islamique bi ci nekk dana ci dolliku te day dolliku boo xam ne bu am am solo la du doon dolliku boo xam ne symbolique la waaye dolliku bu am am solo la ñi ngi koy ñaanal suma borom ñu toogaat fii ay yoonu yoon defaat lu mel nii ñi ngi xaar ci moom ay gëstu xam nañ ne.